dali nay jàmm yi nga xam ne ñoo amoon ci réewum Sénégal bëri yoo xam ne tegoon nañu leen loxo dugal leen ci kasu bi waaye léegi tey ñoom ñëpp ñu génn ba jeex tàkk ndax ni ki démb lu toll si ñaar fukk ak ñett génn nañu leen ci kasu bi i kaay gi nee na yoo xam ne yu bokk ci FRAPP France Dégage ak ñaari membre Pastef yoo xam ne leen ñu ñibbi yéen i kaay gi di enquête nee ca diwaanu Jurbel lu toll si ñaar fukk ak ñaar ci ñoo xam ne ci manifestation yi lañu leen tegoon loxo ba léegi ñoom bàyyeeguñu leen yéen a kaay gi di source a ñu xëy fekk fa mouvement pour la défense de la démocratie ñoom nag nee nañu ñi nga xamante ni ay ndaw la ñu jàpp leen tëj leen ci kasu bu Jurbel ñooñe ñu daal leen di bàyyi kuréel goge di mouvement pour la défense de ñoom nag nee nañu daal dépensé nañ lu toll ci 46 millions yu fekk 381 mille ndax nee nañu xaalis boobe nag ñoo ngi dimbalee ñi nga xam ne seeni mbokk dañoo ñàkk seen bakkan ci manifestation yi ak ñi nga xam ne seeni mbokk dañoo gaañu ci manifestation yi ak ñi nga xam ne maanaam ñoo nekkoon ñu tëj leen fa ak yenn ci avocat yoo xam ne jox nañ leen ci yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Alioune Tine nee na yi nga xam ne moo amoon ci réewum Sénégal la waral bokk na ci justice boo xam ne ñu bëri ci askan wi dañoo jàpp ne maanaam tëddeewul njaaxaanaay yi ku ma mu am nday ak ku ma mu amul nday yéen kaay gi nee na bi nga xam ne moo amoon ca université de Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jàppante bi doxoon diggante étudiants yi bokk ci mouvement bii di Kekendo ak mouvement bii si na ñi nga xam ne ñoo ngi woote apaisement ñoo ngi rahmatulahi di ab waykat boo xam ne ràññee nañu ko loola ci wax na nag li nga xamante ni mooy ay jaar-jaaram ci lu jëm ci wàllu musique wax na ci album bu yees bi nga xamante ni ma ngi koy génnee tuddee ka jàmm wax na tamit ñi nga xamante ni ay artistes yu mag yoo xamante ni maanaam bokk na ak ñoom seen daal wax na tamit concert yi nga xam ne maanaam jot na koo tëgg ci àdduna bi moom rahmatulahi ci réew mi quotidien wax na ne coronavirus bi tax na bëri na ay concert yoo xam ne waroon na ko amal maanaam daf kaa nii la li ko corona bi yàqal bëri na yéen a kaay gi délibération nee na coronavirus bi gis nañ nañ ne maanaam ma ngi wàññeeku bu baax a baax ci réewum Sénégal critique yéen nee nañ ñi nga xamante ni nag ay jigéen lañ di liggéey liggéey yu guddi nee ma jigéen ñi nga xam ne ñooy jaay seen bopp coronavirus bi taxoon na seeni mbir doxul waaye nag jamono ji commencé waat nañu liggéey good fine yéen gi di Les nee na am na ñetti xale yu jigéen yoo xamante ni dañuy jaay seen bopp ay prostituées yoo xam ne dañu leen a teg loxo ca diwaanu Ouest Foire ak lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk ay paquetu préservatif ak lu toll ci ñetti paquet lubrifiant ñooñee teg nañu leen loxo ndax dañu doon jaay seen bopp ci sa bopp goo xam ne teguwul si yoon ndax jaay sa bopp gi dafa war a tegu ci yoon yéen a kaay gi de Le Quotidien nee na mouvement pour la défense de la démocratie ñoom nag nee nañu ànd ñu benn yoon ci élection locale yi nga xam ne dàq nañ ko ba atum 2022 loolee ñoom nee nañu mënuñu ko nangu te ñoo ngi dànkaafu ki nga xam ne maanaam mooy Macky Sall mu teg mbiri ci yoon ñoom sax dañoo jàpp ne Macky Sall dafay foowee ñi nga xam ne ñooy askanu Sénégal yéen a kaay gi di Les Échos nee na lu jëm ci wàllum nag li nga xam ne moom la ñu proposé nee nañu daal gën gaa sori ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février atum nga xam ne mooy projet projet de loi bi yàggatul daal ñu daal di koy yóbbu ci fi nga xam ne mooy ca assemblée nationale teg ko ci taabalu Moustapha Niass li nga xam ne mooy procédure d'urgence noonee la ñu koy jaaralee yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa ndongo Samba Sylla mu bokk ci ñi nga xam ne dañuy xeexal ndaw ñi ngir ñu am liggéey joxe na ay solution ma ngi ci yéen a kaay gi di enquête yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Emmanuel Macron muy nangu di reconnaître que ne ñoom waa France amel nañ bor bu rëy nga xam ne ñooy waa Libye ndax la nga xam ne moo fa xewoon ca Libye ca 2011 maanaam ba ñuy song ki nga xam ne mooy Kadhafi mboolem loo xam ne ay ak yoo xamante askan wa dund nañ ko ni ay jafe-jafe Emmanuel Macron daan wax ne loole lépp France la journal bi nee loole nag mooy wane ne France nangu nañ ne attaque bi nga xamante defoon nañ ko intervenir ci Libye loole erreur la yéene kaay gi ne na ma nekk nag bu njëkk ñi nga xam ne ñooy France di nangu ne seen responsabilité la ci lépp loo xam ne xewoon na Libye ci 2011 ca jamonoy Kadhafi yéene gi di sunu làmb nee na combat Eumeu Sène la 2022 Sénégal Congo ni ki démb 0-0 la yéen a nee na en tout cas football ba taq na suufa football bi nga xamante ni moom la équipe nationale bu Sénégal doon football football boobee kenn xamul lan lay niru Aliou Cissé mun ta ñàkk a changé li nga xam ne maanaam mooy système bi ndax Ousmane Sonko nee na politique bi il faut ñu changé système bi waaye nag Aliou Cissé football bi war naa changé système bi. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen revue de